officiel de la coalition Askan Wi sans lumière les lumières on les balance les lumières on les balance Aïcha Aïcha lumière yi lumière yi Standing ovation s'il vous plaît pour le candidat Sida Babacar Niang Standing ovation Mesdames les si vous, vous pouvez bien accompagner notre Le candidat qui a été choisi par toute la grande coalition Yewwi Askan Wi pour bien gérer la ville de Tivaouane. C'est un digne fils de Tivaouane. Tivaouane a besoin de Sidi Ahmed Niang. Cet homme intègre, cet homme plein de sagesse, un digne fils du terroir. On va donner la parole donc à monsieur Sidi Ababakar Niang. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. Tout d'abord, permettez-moi de m'acquitter de cet usage de courtoisie en présentant mes salutations les plus distinguées au président du parti de l'unité de leur rassemblement, Seyd Mohamed Moustapha Sy. Ces mêmes salutations vont aussi au capitaine Cheikh Ahmed Tijan Sy Al Maktoum. al Mustafa. Salutations qui vont aussi à Seigne Babacar Sy, Seigne Cheikh Ahmed Tidiane Sarr, à Yaay et à Sokhna Fatima. Je présente également mes plus respectueuses salutations à l'ensemble de la coalition. Yewwi Askan Wi Khalifa Ababacar Sall Ousmane Sonko Cheikh Tidiane représentant le parti PUR au niveau de la coalition Cheikh Habib de PM, PM Sonko de PASTEF Sokhna Aïda Mbodj de And Siggil Liggéey saxal liggéey Déthié Fall du PRP Seydou Bokoum du MRDS Ahmed Aydara de Guédiawaye la bokk Djibril Diop du PRPS J'ai l'honneur de m'adresser à vous ce soir ici au terrain de la préfecture de Tivaouane pour défendre nos valeurs, nos convictions avec dynamisme, avec ardeur et avec beaucoup de courage, mais surtout avec le souci exclusif de rendre service aux habitants de la ville, de la commune de Tivaouane. Il est dans temps que Tivaouane devienne une ville économiquement développée, une ville verte, une ville rayonnante, une ville de lumière comme elle l'est sur le plan religieux. Comme disait un savant, les Africains sont des magnons assis sur une mine d'or. Mais Tivaouane aussi est assis sur une mine d'or. En effet, le département de Tivaouane est l'un des plus riches en ressources minières, avec une forte présence de phosphate et de zircon. Malgré tout ce privilège que le ciel nous a accordé, le taux de chômage des jeunes est très élevé. De plus, Tivaouane, en tant que ville de culture, n'a même pas de centre de culture ni d'animation culturelle, encore moins de musée pour archiver l'histoire de la ville. La question que je pose est la suivante. Comment des habitants d'une belle commune qui a autant d'opportunités, de points forts, de ressources naturelles, de personnes compétentes et qualifiées dans tous les domaines de la vie qu'elles soient religieuses, économiques ou politiques, peuvent depuis des décennies plonger dans une précarité totale et absurde. La réponse est très simple. Nous constatons tous qu'il y a une absence de réelle volonté politique. Maintenant, il est de notre devoir, de notre responsabilité de s'engager avec toute la coalition Yewwi Askan dans ce combat de conquête de la mairie de, la ville de Tivaouane. La coalition Yewwi Askan Wi juge nécessaire et obligatoire de mener ensemble ce combat de la révolution de la commune de Tivaouane. Une révolution économique, une révolution politique et sociale pour construire une ville économiquement viable, mais surtout un développement intégral et intégré. man Seydi Ababacar Sy Niang loolu moo tax ma soobu ak yow askan wi ci géew bi ndax ndaw ñi dañ leen war a jàngal xamal leen seen diine orienté leen aar leen sutural leen jàpp ñun waa coalition Yewwi Askan Wi dinañu jëmmal citoyen bu dëppoog Tiwaawan pour remédier Tiwaawan je fais appel tout à toute la population tivaouanoise à refuser toute tentative d'achat de conscience et de vote pour les échéances à venir. Au nom de la grande coalition Yewwi Askan Wi, je vous invite tous à s'engager dans la révolution de la commune de Tivaouane parce que le changement, c'est maintenant ou jamais. Il est temps que Tivaouane relève économiquement développée, une ville verte, rayonnante et ainsi de suite. Vive la commune de Tivaouane, vive la coalition Yewwi Askan Wi. xam naa li si suñu kilifay wax ak suñu leader yi wax kenn mënu ci teg dara. waaye dañu bëgg xamal ni waa Tiwaawan ndax fan yi yëpp ñu ngi laaj yooyu askan fu ñu nekk xaa amuñu candidat kenn déggu leen ci rajo yi kenn déggu leen ci télé yi ñu ngeen xaar leen ba la ba ñu def suñu investiture di ngeen xam ñan ñooy waa yooyu askan wi Tiwaawan defe naa tey jii xam nañu ñan ñooy waa yooyu askan wi Tiwaawan ndax ñii fi ñëw de kenn luyeelu leen kaar ñoo paase seen bopp ñëw fii parce que dañoo gëm ni changement bi ñu soxla Tivaouane ñu yow askan ñoo ko mën def am nañu nag kóolute ndax ki ñu tànn Seyd Mouhamad Moustapha Sy moo ñu tànn ñu ànd ak waa yow askan wi pour Tivaouane changer te ku mel ni moom kum gemb doo ragal sañu ñu ragal sañ ni tiit te itam day wax nit ñi biir Tiwaawan ni leen ñun duñu jënd kenn duñu fab xaalis di di ko suux ndax weer yi paase liñ sotti ci million ci dëkk bi ëpp na bu fekkoon te paase mais weer yi passé liñ ci sotti ci million ëpp na achat de conscience nag duñ ko def suñ diine dañ ko aaye ñun système de valeur lañ xam jikko bu rafet lañ xam ak nit lu mu jàng-jàng boo amul jikko bu war a yore réew du dox ñu nag loolu lañ bëgg daal ànd ko ak yéen fexe ba Tiwaawan tegu fu mu war a tegu fii ak juróomi at daal ñu ne rëcc nañu lu ñu yeex amee maire bu bokk ci yeewu askan wi ñi ñu demb xam nañu fan mën jaar ba Tivaouane tegu fu mu war a tegu Seyd Mouhamadou Moustapha Sy xam na fan lañu mën a teg Tivaouane fa mu war a tegu fi mu war tegu yu ànd ko moom li ñu war rek mooy fab suñu carte dugal ko ci urne bi voteel yeewu askan wi ndax Tiwaawan changé réew mi changé